boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu bàyyi xel ci Istikhama TV ci kàddu gi seen mbokkum taalibe Mor Talla Kane Ndongal Touba ci wàllu caméra bi jàkkaarloo Serigne Abdou Bakhay Dia mbokk xam ngeen tey jii la ñaari fan ci janvier 2022 tolloog bisub dimanche ñu di ci fàttaliku jàmbaari l'islam ji nga xam ne mooy Serigne mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Ibnu Khadimou Rasoul fii ci Mbacké Kajoor pàkk bi sell bi nga xam ne fi la ko waajuram a dëloon tey jii ñu koo xam ne ku liggéey lislaam la nitu yàlla la ku yàlla may cër wala yu mag moo di Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke ibnu Xaadimu Rasul bu ki loo tax ji eh, ñu ñaanal baax a baax Serigne Moustapha Mbakke moom Cheikh Cheikh Sidi Moutar mi nga xam ne moom la yàlla teg tey jii ci bopp njabootu Cheikh Mouhamadul Baara Mbakke maa ngi ko mboolem rakkam yëpp ñu siyaare baax Serigne Cheikh Serigne Cheikh Coro Mbakke Basir moom ñu ngi ci biir daara ji ñu fekk ak bokk taalib yi bëree bëri ngir rek ko wootee woon mbooloo mi wuy si nañu ñu ànd ak nag Serigne Abdou Bakhy Dia tàbbi ci biir dëkk bu sell bii di Mbacke Kajoor xool kilifa yi nan lañ dundalee màggal gi ak nan lañ ko nan la ko mbooloo mi wuy see loolu lépp dañ ci ànd ak ci barab bi siyaar yi ak ñi nga xam ne noonu la kilifa yi génn dalal gan yi kon mi ngoog Mbacke Kajoor 2022 ak seen mbokku taalibe Mor Talla Kane ba nga asalaamaaleykum bokki jullit yi li talib yi teew ci fàttali tey jii di màggalu Mbàkke Kajoor di bis bi ñu fàttali ko jàmbaar ji nga xam ne kenn du ko fàtte mu di Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke Xaadimu Rasuul ñoo ngi fii nag ci wetu Serigne Cheikh Thioro Mbacke Basiru mi nga xam ne kenn la ci njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine euh, ñu fas yéene ànd ak moom di sant bu baax mboolem presse bi fi teew waaye di sant itam bu baax daayira yi fi teew. di siyaare baax sëriñ Abdoulaye Diouf mi fi teew dañuy bàyyee kaddu gi rek sëriñ Cheikh Thioro Basirou Mbacké mu dikk ak ñun ci bis bi ni mu ko waaj a xam ne ne def na ci lu am solo muy doore ko ci alquranul karim waaye jagleel ko jàmm ji nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Lamine loole lépp dana ci dikk ci leeral ñu ànd ak moom. maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gërëm ku tedd ki. yëkkati sama kàddu eh, ci turu sëriñ Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara muy kàddu yi cant ak ngërëm ñu ci jiital sëñ Touba Cheikh Maodo Mountakha mi nga xam ni tey moo di sëriñ Touba ñuy ñaan ñuy ñaan yàlla suñu borom mi nga xam ne dara tawu ko mu bàyyi ko fi guddal fanam. ba lépp lu mu fas yéene lë yéene lëggeel ku tedd ki mu àggale ko barakatul suñu ànd sant ñu ànd ko moom di siyaar itam Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ne mi ngi fi di kilifa kër gi jiite liggéey bi ànd ak njaboot gépp njabootu Cheikh Moustapha gi muy sëriñ Abdourahmane ak seen rakk yëpp sëriñ Cheikh Bombali mi nga xam ni. mooy taawu kër gi yemal ak njabootam taalibe yëpp ànd nañu ñëw e, ñuy sant yàlla bu baax tey ñu mbokki taalibe yëpp di ci jël ci détail jataay bi sëriñ Abdoulahi Diouf mi mu sëriñ Cheikh sunu sëriñ Thierno Diouf Lambaye man naa bu fekkee jataay bi ñu tudd ko tudd nañ kuy Cheikhub sëriñ Touba mbaa ko dib taalibe sëñ Ablaye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay sant di fedd li lépp lawoon ca làmbaay ñu ngi koy fedd li euh, bis bi di bis bu màgg di bisu xéewal di bisu yërmande di bisu ndax ñi jëkk ci sëriñ bi ñëpp te yàlla dong indi woon nañ sëriñ bi ñu doon wut yàlla leneen indiwu leen foon dañu wut yàlla topp ñu woon kenn yàlla lañ doon topp ba ñëw jaayanteeg sëriñ bi fii ba mat ñeent fukki góor ba sëriñ bàyyi ko fi ñibbi Mbàkke ba sañ Daaru Salaam ba sañ ci Touba keroog bi Cheikh Mouhamadul Amin feeñe dafa woo ñooñu doon wut yàlla ni leen cër bi ngeen doon sàkku ci seen boroom gan gi ñëw andil na leen ko muy Cheikh Mouhamadul Amin Baara moo tax Cheikh Saliou Mbacke waxoon seex Sidi Matar ni ko bis boobu di bisu tawfeex di bisu ndimbal di bisu yërmande di bisu paj aajo nañ ko soppi ndax bu jëkk bis bi fi sëriñ bi bàyyi ko woon lañ daan màggal ma waral bis bi may fàttaliku Cheikh Sidi Makhtar moom mi nga xam ni lépp moom la mu tànn di ñu liggéeyloo sëñ Moustapha wéyal ko mu wooteloo ma ma wooteel ko ñëpp ñëw nañu waaye ana ci lan lañ leen woo ci fàttaliku góor yàlla ci ñaanal góor yàlla ci lañ leen woo ñëpp wuyu si nañ ñu defees na ko ni ñu ko bëggee ndax ni dëppook sunna li ko tedd ki waxoon ta'zimuhu bi sunnati defees na ko noonu ndax fii bu ñu xëyee ci kër gi Boubacar Diop ànd ak wàccees daay tasawu subaan ñëw nañu niñ ko baaxoo def jàng ñaar fukki kaamil ak juróom ñett taamil ko ba weer tarew ba léegi ñëw tëje ko fii cib kaamil def fiddaaw fiddaaw aw waxin la waaye at yi lañ doon def noonu la ko kër yëpp defee noonu la ko taalibe yëpp defee noonu la ko daaray kaamil yépp defe noonu la ko ku nekk ci biir Sénégal ak bidib Sénégal defe kon ñu sant leen gërëm leen ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax taalibe yi taalibe sëñ Touba la ñu. ñu ñuy xoole sëñ Touba. lu ñu bëgg ñu def ko <laughs> ngir sëñ Touba. taalibe yi lu ñu bëgg def nañ ko. lépp mat na ni ñu ko bëgg yàlla na yàlla fay. sant yàlla bu baax ndax yéeg nañu li sëñ bi rek moo leen ñor ñu woo leen sëriñ bi ñu def lépp kon ñu sant leen rek gërëm leen te xam ni li ñu bëggan lépp taalibe def nañ ko tàmbalee ca mbale ma tàmbalee ci xéwal yu ñu fi mën a li soxla ci dëkk bi indi nañ ko fi kon ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal ñu seereel leen seenu gëm sëriñ bi seereel leen seenu sopp sëriñ bi seereel leen seen liggéeyu sëriñ bi la sëñ bi waxan tuuba li abdin muridin saadixin lahumu bi xitmatin aw bi xub aw xub aw bi xubin aw hadiyaati xitma ji ak mbëggeel gi ak àddi yëpp boole nañ ko kon ñi leen di sant ñi leen di gërëm ci jëf ji ci màggal gi kon ma sant ñuy fédération bi nga xam ni ca sama waajur wa soxna Dia soxna maam as mu seex moom leen baara mooy ma boole woon ak ñoom ñuy alali sëñ Touba di daay rëb sëñ Touba li ñu def fii xan ñëwee noonu la ñuy def su laylatul xadri ñëwee noonu la ñuy def su Mbàkke Kajoor ñëwee noonu la ñuy def ñëpp di samay mbokk di samay xarit waaye su ma tuddee sono Seyna bu jaaree ko ci moom sono Abi tudd naa ñëpp kon ñi ngi leen gërëm ñi leen di sant ñi ngi leen di ñaanal e, li may wax rek mooy ñu dala suñuy xel te xam ni sëriñ bi am na lépp suñ borom jox na ko lépp li ñuy dimbali nag mooy ñu yam ci moom déglu ko bañ a xemeem dara lu dul sëriñ bi. wax yi bari na coow yi bari na ñu ñu koy mépp ci jëmmi ku ñi nga xam ni dañoo wuuteeg ahlu suufi ab gis-gis waaye suñ bëggee noppalu jëruñoo tontu jëruñoo yàq sa jamono jëruñoo yàq sa temps ndax Cheikh Abdou Ahad dafa waxoon ni sëriñ Touba day kuy jëmale ci moom wax yu rafetul mbaa ay jëf benn ci ni ko yàlla def nekkul la wala dara ci ak xetam xeeñu la te ñaar yooyu bu jar xuloo mbaa jar xeex nekku ci kon xool Cheikh Mouhamadou Mountakha mii sëñ Touba roy ko ci lépp suñ ko defee danañ noppal te danañ am liñ bëgg kon ñoo ngi santaat ñëpp di gërëm ñépp ni ma ko waxee ci njaalbeen bisu sant la bisu ngërëm la bisu faj aajo la te sëñ Moustapha ni mu ko sàkko woon wooteloo ñu ko wuusu nañ ko ànd nañ ko ñun itam kon ñoo ngi sant yàlla di sant sëriñ bi di leen sant di leen gërëm di sant ñi nga xam ni am na loo xam ne mënal nañ ko suñ bopp ab loo xam ne mënaluñ ko suñu bopp muy li jëm ci wàllu état bi ku ne xam na jamono bi toll waaye bañaluñ ñu dara ñoom ñëpp mobilisé wu mobilisé wu nañu ànd ak ñun ci lépp ba niñ ko bëggee lépp munta mat waaye la munta ñàkk lépp am na kon te lépp muy président ñu ngi koy sant ci sëriñ bi ko gërëm di ñaan ñi nga xam ñëpp dugg nañ seen loxo di ñaan rek barke Cheikh moo leen baara yàlla yàlla fajal ñu ajo yi gën ñu tiis yi te sàmm ñu la mu daan wax rek dafa am jamono joo xam ne nii la meloon nawet bi melu na war a mel am ñu koy jàmbat mu ni eey eey jërte kuy dund ba ñaan leen dund fekke ku dund ba déwén di lekk ba déwén Cheikh Modou Moustapha mos naa ñëw Taïf fekk booba réew mi doy na waar lool mu ñëw woote laaj lu xew am ko ko ni Mbàkke xanaa déggoo bii bi fanaanee ba tey déggoo fi kurgu kàndang ndax kenn amul loo wol mu ko accam xanaa xobi garab yi ma ne sa ci dund ren ba déwén at moomu la commandant doon jënd xañ ci guy yi mag ñi xam nañ ko nga xam ni at moomu ku ku ne ci àll bi rek am nga loo dundee ba ren ba déwén ba mu ko dajalee ba nag jut da ko lakk doyewu ko dara muy waxi doomi sëñ Touba sëñ Touba nekk na fii ci Jolof nawet bi am am ko yóbbu ñëpp ca tool ya mu ñëwee sëñ ni ko ana loo ci jublu mu ak ñu am lu ñuy jëloo rek mu ko kaamil bu saa borom bi mu manqué di sama sama njël tóorub sàq attanu ko kon suñu lépp mu ngi ci sëriñ bi kon nañ leen sax ci sëriñ bi te jàpp sëriñ bi te bañ a gertu la leen ndax la mu wax ci muxaddamatul xidma allahuma salli ala sayidina muhammad al xaysi wàccaal nafa yi fawqa naf am nawet li muy am am njariñ defal ma ko man Cheikh Khadim ëpp ko am njëriñ biñu amee sëriñ Tuubaa am sëriñ am nga lépp te bu ko nopp da ngay bëgg sëriñ Tuubaa alhamdulilahi rabbil alamin biñu leen seere leen loolee ci jëf yoo xam ne gis nañ ko taalibe yi jëf ko ci màggal gi muy fépp nag muy commerçant yi muy transporteurs yi muy daayira yi nekk biir Sénégal ak yi nekk bitim Sénégal ñëpp a àndandoo ni ñu ko bëggee ni ko Cheikh Moustapha bëggee defe lees na ko noonu kon ñoo ngi am mbégte ak cant ak gërëm di ko seenalaat ñëpp. Eh, kii ñuy fàttaliku nag muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara keneen ba mu gënee àddina eh, bayit boobu nekk ci Mawaahibu Naafih sëñ bi da koo yor sëñ bi da koo yor gàddu ko leew seex Mouhamadou Lamine Bara. di dox ca jumaa ji diggante penk ak soow naan xa wala woon na fa jaay ñi bëggoon a àgg ci seen boroom li leen tënkoon kii ñëw moo ko tinki kooku la fàttaliku tey kon ku ci ñëw wallaahi la asim loo ci fas suñu borom dina la ko defal loolu leen waxoon kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm xool bi moo fees ndax li ñu yëg ak li ñu gis jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh may daanaka fi ñu toll maanaam mënuma wax xëy na ndigal tax waaye baat bi mu jox rek moo fi indi ñëpp mooy aaju ji faju kenn ku nekk itteel fi tax a ñëw yaa xam ji mu doon waaye lim ne aaju ji faju man loolu gëm naa ko ndax mënu moon a ñëw waaye moom damaa jaral lu ne maa ngi wat ci sëriñ sooy bu ne mhm. ku ko gënal amut te sëñ Soy bu ma yar ku ma xam-xam ma mayit la njëkk a dalal alxuraan 1947 mosuma tàqali ko moom ci àdduna li ma xam na ko waaye buñ doon baax day romb baax moom dafa jafe ci li maam wax woon dëgg fa man ala siwa ilahi dallaka fa firru minhu innahu adallaka waaye wa man ala ilahi dallaka fa in xaalaf tawa faril mari tat may sëñ Tuubaa nee booy wut kilifa da nga wut kilifa gu jub koo xam ne gi da nga koy xool mu doy la mu ragal yàlla mu teg la ci yoonu yàlla boo ko wutee te tegul ci sànni ko ci àll ba te seeti kële koy digal boo dee ci kële koy digal daf koy jaanub sëñ bi ci na sa jaan gi des ki kenn dégg ci moom kenn dégg ci kenn dégg su nab yi lu ko neex loolu li neex maamam yomb na lool jafe na ci mbàkke mbàkke buy buy buy wax bay jooy loolu loolu loolu leneen la ak taalibe ci la jooyee te sëñ bi amul mbokk daf moom mbokkam mooy ki jur penku rek li yàlla digal mu ko def ni te mbokkam waaye fii ronkam yi génn jafe na tey nga wër ahlu Mbàkke sëñ Saliou di moom daan ko def daana ko def ñëpp gis waaye moom mi ronkam yi génn dëgg ci moom wala tax la mu ma uxfiya lahum min qurrati a'yun li ne ci xol bi daa fees ba bët mënu koo gis foofu la waxee man day sama sëriñ di sama xarit di sama sëriñ yëkkat na doom bëgg ma koo jox la teem mu jox ma ko ma gant gàntu dama ne am mbakki mbakki du ma ko denc man ni daa ko yërif waaye du ma yërif góor rek ma yërif ci ci bu doom mu yërif ma du ma ko wax la ko naqare du ma ko def ma gàntu mu ne ma dama la yóbbu mag ma ne ko ah, dese naa ak mag jàng naa xam-xam bi waaye ñu ne ma nappaaje foofee day metti ci man mu ne ma seetal ku la doy ma jox ko ma seet sama rek ñoom bokkoon mu def ko keneen ba ngi dem moo koy ba aéroport kon kii man deselu ma dara deselu ma dara ci àdduna man waaye nag ah arab bi dañuy wax ne alhimmatu ahadu min a sayf itti moo gën ñëw jaasi itte la am mbooloo mi maam rek tax ñëw du buntu kër bu ne boo dee fekk mu fees nii am ci loo xam ne itte ak toppee kon nag mën na fa yàgg waaw maa yoon foofu naas fa in foofu loolu alxuraan wax ne askan wu ne a ci ëpp kat gën caa def lu baax gën caa matal dana fi yàgg faaw mu yàgg fi nañ ko ñaan ci dara ji Serigne Touba dara ji Serigne bu ko kenn sut aw fan ci askan Mbacké barki sëñ Tuubaa man de loolu laa ñaan sëñ bi auzu billaahi mina sheytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Mamadou Lamine Bara Mbacké xanaa di sant yàlla rek di julli ci nant sant suñuy waajur ah di leen sant yéen tamit waa tele bi ndax kenn mun amul seen fay di nag Serigne seex Thioro mi ñu fekk nga xam ne bàjjanam soxna Asta Mbacké mu Serigne Mamadou Lamine Bara moo ñu boole woon nag ñoom moom ñu boole woon nag moom te ba léegi mi ngi ñu jàpp saa yu ñu ñëwee Mbacké Kajoor fii la ñuy dal ci ñun mu baax am jàmm yaatal ñu ñu ànd ak daayira bii na nga xam ne ñoom jigéen ñi ñu àndal étudiante la ñu woon ci daayira bu ñoom aatu jaañ waaye ba léegi bàyyiwuñu yoon wi ñu ngi téye ba mu dëgër ñu ànd ak daayira des enseignants ñu jubile nekk benn ba léegi nii dara ñaawul tubaarkàlla kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Seexul Xadim di santaat nag yàlla bu baax mi ñu boole Serigne Baara Mbacke mii nga xam ne saa yu Mbacke Kajoor ñëwee kenn du manqué ñun ñëpp ay mobiliser ñëw fu ñu ñëwee dal ci suñu sëriñ bu baax mi suñu sang bu baax bi nga xam mooy sañ Cheikh Thioro yàlla boole ñoŋ moom mu bëgg ñu yaatal ñu berndeel ñu tubaarkàlla bu ñëwee ba suñu xol day sedd lu ñu fi ñaan nag ñu ngi ñaan ci barke Serigne Mamadou Lamine Bara yàlla na ko yàlla nangu te yàlla nañ fi daj ay yoonu yoonu yoon te yàlla saxal ko suñu kanam bàyyi ko suñu kanam jërëjëf sant nañ ko bu wér. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama fii da ngeen di bës fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyeekoo.